li lépp la ginnaaw yàlla ak yonent bi ñu sant suñuy waajur di gërëm dëkk bi boroom dëkk bi conseil municipal yi fi ne responsable yi fi taxaw mais di bëral cant ak ngërëm ginnaaw yàlla le président de la République Macky dëgg yàlla bu ñuy waxte yàlla tax bu ñu taxawee ti tey di Ndiofane Sorokoum li fi mën li fi am ci wàllu réalisation bu ñu waxee lycée état la état bi c'est le président de la république bu fekkee ne du Macky Sall moo ñu jàppale moo ñu facilité yooyu mbir nan lañ mën a amee fii lycée loolu lépp mbirum yàlla ak suñu borom ak président de la république te wax dëgg yàlla nag dëkk bi euh, euh, lu leen président defar rek mbégte la ci ñun parce que dëkk boo xam ne dafa engagé wu ci Macky Sall li fi am ci wàllu pourcentage électoral tous les bureaux de vote de Ndiaffane Sorokoum au moins on peut calculer c'est à 96 pour cent ñooñu nag par rapport seen engagement te tey ci njëlbeen la ba tey ñu ngi engagé bu ginnaaw Macky Sall kon nag bu ñu yàlla mayee doole ak kattan ak président de la république ak nguuram ak pouvoir mu bëgg wax dëgg yàlla doole yi ak mën-mën yi ak kattan yi ñu décentraliser ko ñi nga xam ne ñu xam ne ne sax yëg ñu ngi bokk ci biir Sénégal ko ñu rendre leen seen citoyenneté boo ñëwee tey Ndiofane Soro Coum tey bu la timis fekkee fii da ngay taal lampe ak lumière loolu Macky Sall la ko def président de la moo ko def ñu ngi ni toog ak ñoom ñii fi dëkk ak ñun ñëpp ñu ngi xaar yoon boo xam ne dañu koy bitime ñu def ci goudron bu rafet ba nga xam ne da ngay jógee Oré Fondé à 15 minutes 10 minutes nga egg si Ndiofane Sorgho ñu ngi koy xaar ak doole aménagement yi nit ñi mën a def agriculture bu rafet président de la moo fi inauguré électrification rurale fii ci Ndiofane Sorgho ñëw na ba fii ci dëkk bi électrifié fi donc nag wax dëgg yàlla dëkk bi moom ak ñun ñi ñëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm waa dëkk bi aussi di gërëm jeunes yi ñëpp ñu ngi leen di gërëm centre de stockage d'oignons ñoom ñi promesse électorale la woon élection présidentielle laa leen promesse dinaa leen defal fii centre de stockage d'oignons le marché est attribué l'entrepreneur est la avec nous et c'est celui de crédible un entrepreneur crédible parce que hôpital kooku tabax ay deux milliards et quelque bu ñu la joxee centre de stockage d'oignons xam ne ne euh, euh, ay millions am taxul bari noonu loolu nga war a sant yàlla nga xam ne ne ñi ngi ko jox aussi dinañ la ko defal comme ni nga ko bëggee ndax ñi am expérience la ñu wax dëgg yàlla jigéenu Ndiaffane Sorokoum ak gox yëpp mérité nañu loolu ndax seen engagement ci Macky ak seen engagement ci ci suñuy ginnaaw.